Hello viewers, uh, today we are in Bara to ask, uh, to, to ask the drivers in the, uh, in a garage to know what are some of the challenges they faced during when the bridge was established in Farafenye? Do they have any challenges? And if they have any challenges, what are some of those challenges? And what are some of the things that they want to, uh, to be done in their in their territory so that they can make uh, it can make busy, business easier for them? So we'll go further and ask them and know what they have to say about this. Thank you so much. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Aturbi. Uh, Namaketa. Keita. Uh, nama Keita, driver nga fi wala driver. Ah, ok ok depuis boo boo boo leen starté di business bi ak tey ak right now ak depuis buñ gars yi sampé bridge bi lan lan moo nekk différence bi lan ban différence ngeen am fii. anyway xam naa ne daal mënuma laa wax nag bridge bi la wala du bridge bi waaye right now presently my business is not working here in terms of transport doxut. so how does that bridge bridge bi naka la affecté seen business bi. because we are no more getting much customers ba pare these bosses, boy ñu ngi flow from Dakar to Ziguinchor dak Banjul Dakar you know ñun ñu ngi fay suñ kayit yi toog fii suba ba ngoon benn yoon ngay dem si border bi ñëw so it's crazy it's crazy So, what are some of the things? What can you say to the government, or what, what, what, what improvement do you need here? improvement bi moom mooy lan because nit sol xam nga improvement ak nu mun a ñëwee rek na fekk yaa ngi live sa life life better you know yaa ngi get sa nécessité si soo ko amee is normal waaye soo ko amoon nag is a problem. all right thank you. all right you ah, bi. Pape Touré. waaw ah, Pape Touré ay bridge bu nga ko sampee si comme si yéen nekk si garage bi nii dafa dafa affect seen business bi wala. waaw maa ngeen nuyu mbooloo mi yëpp. Euh, Brick bi de biñ ko commencé ba léegi ñun amuñ si benn jafe-jafe ci mbiram passage ñun ñuy daw Farafeññeetu Bara amuñ ci jafe-jafe si mbiram passage euh, suñ jafe-jafe daal ci mbiram passage daal amuñ ko ci daal ci gattal waaw. waaw yéen ban jafe-jafe ngeen di am fii si garage bi. waaw jafe yi ñu am si garage bi nag mos li bëri na te yàgg na si ñun torop feewar boobu yàgg la si ñun ndax am na jafe-jafe gasoil loolu am nañ jafe-jafe am parce que gasoil bi dafa seer te amuñ fenn fuñ ko mun a xam nga jooytoo ñaareel bi mooy gasoil bu seer yoon bi baaxut from Kerewan to Barra 54 kilomètres boo xamante ne yëpp gars yi nañ ko depuis last year si biir nawet bi ba léegi ñu ci rang bi di daw boole gasoil bu seer paas bu bon yàq sa oto amuñ leen luñ jàpp na buñ ko amoon def leneen waye gisun ci dara lu ñu feeboo léegi waaw loolu daal am nañ jafe-jafe bu baax waaw am nañ jafé gasoil bu ser am jafé jafé pass because of from baratu to Farafenni 115 kilometers ngoko ko ko 115 hundred and fifteen dalasis kooku kooku kenn ko ne nga du lu correct sax because amu benn moto bo xam ni mun naa jógee ba Farafenni di laka less than lu manqué won 20 sa dem ak sa ñëw mënut a nekk twenty litres is a wan thousand one hundred dollars léegi nga calculer loolu noonu looy dese nga war a fay kaapaak bi soo ebee fii da ngaa fay kaapaak bi ah léegi soo déparé fii pono bu toj sa soo ko amee am nga problème benn pono bu yaaw rek soo ko fay am defee sa trip sa am nga problème because da nga dem si jaaykati pono bi nga avance ko desal ko nga dem trip dee la ñëwaat doo ko mun a àggale ci transport kon foo jëm So yoré kër yoré sa dépenses everything fo jëm li nga yor soko mom wara jox a mom walam fo jëm am nañ problème wa waaw wa waaw la nga am pour wax nguur bi mbir lool non wa nguur gi lama am pour wax len moy ñaari problème yi mu ngi amagum suñ yoon bi ndomba wan ñom ñoo am doole ñoo tej ko ñoo am doole ñoo défer ko ndomba wan nañu défer suñ yoon bi mu normal parce que ñi nga yàq suñ auto yi nit ñaa am pousser bu jeex demoon na ba lolu jeex fi nak nguur bi ñoko fi indi wat ñun bari bu fi lolu jeexoon su ñun ñoko fi fi wat ñaaral ba moy suñ passé nañ ci taxaw defaral ñuko suñ passé nañ ñi taxaw defaral parce que ni ñoo dundé ñun tamit non lañuy dundé magam jamu di daw how many kilometers dem sa kër mëno amé hundred dalasi bo taxaw sa dom bu ne guddi sax amoon loko yobé l'hôpital nguur gi nañ taxaw ci loolu sonu nañ dem nañ ba fi mu nekk ne ñun Farafeña duñ nëbb suñ lay from baatu fara bu ñu demee Farafeñ dañoo jël suñu dalasi bi ceeñ ko CFA sax dem poste créé jënd fa gaz waaye because moo ñu gën a féebu suñ ko deful du sotti loolu nag métti na yor sa dëkk mu am mu am pétrole teesoon ngay dem di ceeñ sa xaalis dem di Sénégal dem di ko fa jënd loolu pour lan la loolu gàcce la si ñun tamit waaw nguur gi nañ taxaw si loolu nañ taxaw si loolu. jërëjëf ah. jërëjëf. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, tour bi. man basiru so ah, basiru so yo la la moy sa si garage bi. man driver la. Ah, driver ok bridge bu nga ko sambe bi léegi da ngeen am coono ci mbiri wa mbiri li bi customer yi da ngeen am ay jafe-jafe si walu lolu wala. déedéet. man jafe-jafe ngeen am si garage bi. jafe-jafe bi am ci garage bi la moy yoon bu bon bi ak gasoil bu cher bi ak ba pare gasoil bu cher bi suñ demee Farafenni dañuy ko suñu bi di dem ci boora bi diko jëlé ci ji gasoil di ñëw pour transport té lu waral lool moy pass pass bi itam baaxul yo so ébé dem nga gënal sa paiement yépp nga wara ñëw indi borom bi 200 dollars sa kër yaang fa nga wara dem yobbu fo lo wara joxé dépasse doko am so lool suñu pro suñu métit la ñaara bi di yoon bi baaxul every day suma ay moto yaang ngi fay def accident daw di saran pousser yi do gis moto di ñëw beneen di ñëw do lañ ci sante lek pousser te bañ ko dajee ba léegi dafa yàgg depuis daaw ba léegi coow ñu ci raram bi so loolu mooy suñu métit waaw yow loo am pour wax si nguur bi mbir loolu noonu am ci nguur bi mooy pour mu gëstu ñu dimbale ñu parce que amee sa réew mu amee pétrole nga romb ko di dem réew yi jàmm du ko fa jëndee ji loolu du avantage de réew mi because da nga yore sa xaalis Gambia essence Gambia mu ngi fi gasoil Gambia mu fi nga dem fa romb ko fa wécceeku dem jël CFA di dem réewu jàmbur du ko fa jëla ci sa réew boobu du avancement réew mi léegi li ñuy jooytu nag ci nguur gi mooy mu dimbale ñu ci affaire boobu dimbale ñu itam ci yoon bi parce que ren moom jeexoon na fi already waaye bañ ko dajee ba léegi ne lañ ko defaraat defaruñ ko soo loolu daal la ñuy ñaan nguur gi pour ñu jàppale ñu ci loolu waaw. ok jërëjëf ah. waaw ah, ok baax na. Ah, asalaamaaleykum. waaleykum salaam. tuuti Madou. Ndeye Ibrahima. ibrahima touré ah, ibrahima touré kono bi sundako ah, ndeg sun kamala kay man fem bula falona kay sun karo lo nak ye ah ñina sun karo duti ay ñalla ni wo santa milal mumé ñina sun karo ah ñina sun karo diatal nak ya dia badal nak ba man sero aussi nak ye sero diatal nak kala ñina kay jamala bi jol bu kama nak ande ba garaso kono janna ye men jokon sifa ñoo dol bi jol bu kama nak ye এটা ah, ida এটা এবং ডুকুলে গারা so kono jam nde dama aprandel de dama aprandel no aprandel ada dong bawo nga selo kana si kundung kundung kasi abaga so nying sel nyaati lingo te atol do wal ka ke de nyin sel nyaati lingo do go na abanya menang na nga sa mo nyaama rek yeah kora bu ko kol kolen ala customer bul bawo salo kana si hmm. no no no mu ge kolen na kol ba nyame na ga tuwa rek Yeah. Ah, okay. So, adul adul ko mo kola kulo so gara so kono jam. Ah, jam kola ko de fo kilenol mi ko dun dit. moɗo ha ok yo moɗo lo logu balya o fanan ɓe ƴes nak waragato o hakka o ɓe ƴel nak Yes, thanks, sir. Yes, after talking to a few of these drivers in the in the Bara garage, we talked to different different uh, drivers in the Bara Bara garage. They made it very clear that we asked them about the bridge, if the bridge is uh, affecting their business, if the bridge is affecting them with having customers in the garage. They said no, the bridge is not affecting them. The only problem that they have, and you heard some of them saying that the problem they are having is. Um, yeah, the problem they are facing is the, the road around uh, around Kerawan that they had they they, they just uh, the government break and then they are about to mend it, but then the bridge is the the road is still not still not functioning. So that is the problem they are having. They said this is this is really affecting them, and then the price of the, the price of the fuel is really high, and they need to they need to help them with that. Those are some of the challenges that they're facing. Until we come your way next time, keep watching Gambian Talents TV while we bring you more and more and more stories. Thank you very much. You are here with Ibrahim Ajambang, and behind the camera is my man Ibrahim Asanya. Thank you very much.